capitaine capitaine kaay Calombeer ndeysaan tey combat bi ñoom ñaar na sama xarit lañu non Ahmed nuyu naa ko Ahmed bu Kanji nuyu naa ko Ahmed bu Kanji production doomu ndey Pape Sarr <laughs> Ousseyn sama sama sama promoteur bi le promoteur numéro 2 Fallou Ndiaye c'est promoteur numéro 1 mais Ousseyn c'est le promoteur numéro 2 loolu bëgg naa ngeen dégg ko bu baax a baax xam ko grand combat sama ñaari doomu ndey samay xarit diggante capitaine ak Calombeer kii di waree parcelle. 1 ba 26 kii la waree fisal mbaadaan capitaine nuyu naa la. waaw fay naa la bisimilah ginnaaw bu ñu sant ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waaw di wax bisimilah rek ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di ñaanal suñu papa fu mu dem yàlla fi mu jógee ak booleen jullit ba mu fekk di sant sama yaay di sant sama yaay di sant sama yaay bi ñetti yow xam nga di nuyu presse bi ak champion bi teew ak sécurité bi ak gars yi yëpp mataar bi Fodé Mbissane maa koy nuyu baax a baax moom laa àndal bëgg gars yi yëpp daal jaajëf. Salam Ber ñu la mu nuyoo. salaam salaam Père Thioune taxawal ma Père daa am lu ma bëgg nga may ma tuuti rek mun na ne taxal ñu koro bi ah Père Thioune dama bëgg nga may ma ma jege sama adversaire tuuti rek loolu jegante leen waaw mais amul naa tey la kees tey bii combat laa dëgg boobu mba wari dañuy jàpp fabriqué merci bi nga ponkal man ma ponkal ponkal. waaw ndeysaan parce waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla nañu sant yonent bi bu ñaari waajur sant di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana firdaws ndax ndax tey lépp lu nekk si ñun moo ko def si ñun muy ñene gi ak yar gi ak taalibe gi kon dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana firdaws yi waaw di ñaanal xam nga si waaye bu jigéen xam na moom lañ fi dële ngay ñaanal yàlla na ko yàlla taxaw xam nga waajur waaw di di sant ndax ku ñu xam xam ne kër yëpp benn lañ mais dafa am ku ñu bokk. Mm-hmm. muy lan tarixa Cheikh Ahmed Tidiane si. Mm-hmm. di leen taxaw mm-hmm. di sant suñu wasila bu baax ñu sëriñ Babacar si. waaw di ñaanal suñu mbay si Mansour yàlla na yàlla guddal fanam. yàlla yokk leeram. di ñaanal kilifa diine yëpp muy bu murit bi bu xaadir bi xam di ñaanal ñëpp bu baax a baax. waaw di sant Père Thioune. xam nga di sant xam nga ñëpp ñu fi ñëw di sant xam nga presse bi ñu ñaanal Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm ndax tey képp ku ñaanal Sénégal am jàmm rek boo tëddee sa kër nekk si jàmm kon yàlla na fi yàlla def jàmm jërëjëf ñu lay félicité bu baax a baax ndax dama gis ne tey ci génération yow rek yaa fi nangu di wàcc di bëree ak xale yi ñu jaajëfal si bu baax bii mooy sa ñaari combat waaw mais bii mooy sama onzième komba onzième combat. waaw c'est que làmb gars yi dañoo war a xam lu dañoo war a xam benn affaire ñun mbëri ñoo am na benn bërëb bu wax bi sànq ñun mbëri ñoo mayante xaalis suñu biir. Mm-hmm. tey jii moom ñuy nuyu ko fayee ay mbokkam la koy yóbbu de. Mm-hmm. certes day yóbbu ay mbokkam la mm-hmm. man du ma la ko nëbb man dañ ma fayee sama cachet barke Ababacar Si dama dem ba sama yaay dawal sama moto ba sama yaay ne ko xaalis baa ngi nii jël si lu la neex. man ñaanu waajur laa gëm ñaanu waajur laa gëm leneen xam nga dañuy mottali parce que tey jii pour sëriñ bi ñaanal la il faut sa waajur xam nga sa waajur xolam sedd si si yow sëriñ bi mën la ñaanal xam boo demee yàlla neexal sa yoon te maa ngi ñaan yàlla suñu borom moom mu yor ndam yàlla ma yàlla may ndam si barki weeru gàmmu bi ñu génn. incha waaw damay ñëw sa question rek comme ni nga wax ne dox ma wàcc bëri booy yi boo yi ñoo ma yab ah booy yi ñoo ma yab. ndax moo tax ñu yàpp ah. mbapat bi moo leen favoriser moo tax ñu yàpp ma mais le jour si si kàttanu yàlla lay xam ne dama mboroo si kàttanu yàlla parce man dama bëri ay champion ndax sama palmarès su ma si limee fils de Balla rek doy na kon tey suma ma wàccee ba bëri nii war a yaru tal capitaine dégg nga ko li non man du ma manqué kenn respect man yar lañ ma xamee sama yaay loolu la ma jàngal bu ma jaxasee askan bi man maa ngi mën a respecté déglu déglu ma li ngay wax dama laa déglu loolu mooy yàq kon dama war a déglu voilà lu mu wax ci ay ñaanu waajur nag dañ ko séddoo man sama yaay mooy sama première série moo tax du ma xaar combat pour teral ko man na chaque weekend damay dem bërëb ji ngir teral sama yaay moom day xaar combat loolu daa yeex ay weer yu weer la di ko sant nag comme nu ma nangoo jël waa ndax sa cinq adversaire daw nañ Ous Garga am na ko bu fees bi ñoo dégg parcelle bi moom moo mujjee ruub combat bi ma ñëw stade bu war a ñibbi ñu woo ma ni saa yi ne pare na kon nag waaw ndax ñeme na maa jël quoi lu muy nag booy ñoo ko yàpp ñii wala naa non non man du ma booyu kenn. mbabat mbabat bu la favoriser nga am ne champion nga ay daan cinq personnes six personnes ñu favoriser la damay sant yàlla si man du ma booyu kenn combat yi ma daan yëpp ay top 5 lañ. te ñi ma daan yëpp mën nañ maa jur samay nijaay lan ñii samay papa ma daan leen. bokkul bii mooy raw nag. xam nga lan moo nekk ci combat bi comme ça xam nga lan moo nekk ci combat bi moom jàmbaar la xam man loolu dama koy nangu moom jàmbaar la champion la daa ñeme gros kile te man loolu laa bëgg. danañ bilaay wala ragaluma loolu man bañu ma mu door ma daanu bañ ma door nit mu daanu si lamb la lamb door lañ wax man ragaluma loolu bu dee bëre nag mën naa kaa jàngal moo mag suuf mais ci woo xeex laa koy woo ci lu mu bëgg bu doyalee après ñu dem bëre ma daan ko insha allah neexu la jàngal bëre ba ba dimanche insha allah ba le quinze waaw balaa quinze balaa li mu ma tóor dama koy tóor tuuti rek ndax tey ku ne xam na calambeer man ku ma am xam na si yar wallaahi lazim man du sigg xool nit mais bu dara desul lu làmb damay wone sama bopp te làmb moo ñu boole. onze ma ah, kon nag lan mooy damay wane sama man maa wone sa sama bopp war a bëre ak yow ma am onze ma am ay sept combats di bëre ak yow te booy maroon moo la mujjee daan mooy sama grand jox na ma sa sarax bu yàgg. Ah. boo yeboo nga def ndànk jox na ma saraat bu yàgg. ma daa xalaat ma mu door ko mu kaw mu def carte appui mu jël bopp bi sax te moom jox na ma saraat bu yàgg. da may déglu da may déglu da nga wax na ko léegi ñun ay noble waaw ba may wax dama la këf nga ne ma wanal yar ma ne tekk. dëgg waaw xam nga dañ la posé question nga wax. jox ma micro ma wax kon da ngay jël sa temps ndànk ndànk bàyyi ma moo wax you know saa may dégg yeah waaw da ngeen def affaire discipline moo gën ngay def say yi ama booy morom muy muy wax booy morom booy morom la yaa ngi dégg moom moom la booy moroom suñu làmb at yëpp gis nañ koo xam nañ ni mu demee duma ma wax du ma saddal victoire jàmbur mais yàlla suñu borom teg na ma defet damay sante yàlla bu baax a baax combat bi lañ nekk kombaa bi la ñu war mais dama lay won ne nee nga da ngay ñëw jàngal ma bëri saay man li nga li nga def bi hmm? mënoo maa jàngal bëri te man barki alxuraan dama. loolu pourtant yaa ngi koy bàyyee xel de li ma def ci mbapat ba léegi yaa ngi koy bàyyee xel saa combat bi xam nañ ci li nga am. xeex nga yaakaar ci laa woo bu ma doyal ma jàpp la daal la xale bu ndaw la danga war a am yar ma tamit bàyyi ma dem quoi mooy yoon. booy wax dama lay bàyyi wax parce que moi j'ai fait les bancs. bac eh, rek la am. nag ne souvent trompeur. loolu moo di jàpp doo nga l'apparence trompeur. man saa ah. xoolal man xeebu rek. Eh, capitaine xool ko nii rek ñeme ko mais bu desee dara. du dul bëre man damay làmbulee du ma bëre kat damay dëlee eh. damaa bëgg nga déglu ma du ma bëre kat amoon nga bëgg du ma bëre du ma bëre kat da nga may déglu lu déglante ñu wax benn bennal da nga may déglu il faut nga déglu bi ñu fi toog xam tey boo gisee kilifa yi toog pour lan neexal signature bi ku ku dem am lu mu yóbbu parce que tey wax tey dafa neex mais tey booy wax nit daa mën siy jàng kon il faut ñu dégg leen il faut ñu dégg